saasi la way way yi ba ne lawla tuqaala qultu jalla qudratu summa basata topp mu tàllal yeddahoo loxoom baadamaa ci gannaaw li nga xam ne am sodahoo sadd na ko ba mu wayee mu daldi tàllal loxoom wa qaala mu ne anjasa na teewal hurrun gor maa waada lam dale hoon aywa lu way waxoon na ca xelam dem te loolu arjata na teewal hurun gor ma waada dëhëlam aywa ku waxoon na sa xel dañ la nga waxoon wasaha na taw xaalul niir israada ba mu dannoo aywa ku ku tawal ku digee ku yaakaar loo woon matalal la nga digee woon lii la wax xaaris ma sànni ak dinaar dinaar mi lay dem ci moom ma sànni ko dinaar wa qultu ma ne ko xudu jàppal dinaar bi xayra ba suufin mbirum du la ku ñu jàqloo alayhi ci ma ne ko jël ko lew na la doom yaa ko moom xudu jàpp ko xayra ma suufin mbirum du la ku ñu jàqloo alayhi ci moom fa wadaa woo mu teg dinaar bi fii ci gémmiñam mu teg ko ci buntu gémmiñ gi waqaal mu ne barik allahumma fii barik yàlla na nga barkeel allahumma yow borom bi fii ci dinaar bi teelal bu baax a baax hmm. su ma sammara topp mu wagu hmm. li leen si naay ngir wàññeeku hmm. baax da taw fiyeti sanaa ci gannaaw matal tagg mu wax waxi sant ne kon baax xam kuy wut moom boo day dem lu fe de day dem kon maa dem fanasa a daldi sosu lii ñi xaal ma min fukkaati ci mbóoranteem natwatu tirabin mandik cofeel mm-hmm. sahalat googu yombal na ale ci man itna fa tirabin sosat geneen fay mm-hmm. waaye waxtaan wi nag ma def cee doylu mm-hmm. bëgg mu dolli at jaral ma man jaral na ma dolli kon na saa dal li ñaal na min fukaati ci mbooram teeb natwatu xaramin mandik cofeel boo xam ne sahalat yombal na ale ci man itna fa tirabin sosat geneen fay fa jaratu ma génne wala nga ne ma bocc dinaaran dinaar axara beneen ma génne waat beneen dinaar wa qultu ma ne ko hallaka ndax ñaal na la fi an tadumahoo ci bu nga ŋàññat bi su ma tadumahoo topp nga boole koog ba nga tàgg bi yoon dama bëgg nga xasal ma ko boole koog bële faam sada mu dal de sadd murtajilan daaji juri muy woy dawee ci irtijaal mooy li muy wax bindu ko di ko xool dafay wax rek wasadaa mu jooru ajilan daaji gaaw mm-hmm. mu ngi wéy ke amul diir maan sabban lahu min xaadihin mumaadiqi mm-hmm. asfara si wajhayni kal munafiqi bam haas mm-hmm. mu ne sabban halaku lahu ñaal na diinaar min xaadihin ci aji huruj mumaadiqin ku daaji njar ci cofeel mu ne kum xaritoo di dana la jàmbu de bu joxe bu la joxee gannaaw fàtte na démb askor aji gel la wa wajay ni kay borom ñaari xanam bu nekkee ci sa loxo daal daf la ne manal na la lu ne waaye nag bu demee ba xaajoo dem nekkal keneen nag fàtte na seen ànd ak démb de kooku bu la bu la bëgg a songee ci moom lam la lëggéeyaloon démb du wax la ma defoon démb du mu ko yàqal day nekk doolee kooka rek kal munaafiqi e mel ni naafiq kum janoo rek ne ko mag yow yëpp doo dana e mu feeñ waxtu ni ci ñaari melo li ay ni raami xiñaal ba tam aji xool boo e koy xool noo koy jàppee dëgg-dëgg doo ko xam moom moo xamee sufratul lawni bi nga xam ne ku sonn moo ko daan xamee waaye mooy finnal nit ñi li nga xam ne kitaaru moo koy def te loo xam nga da nga kitaaru kitaabu finnaal la ba sa jëmmu fure nga jógee ko ca sa leeraay ba xamee sufratul lawdi sufratul lawdi boobu de tegtale coono tollu ndigante mooy melokaanu dinaar te nag moom mooy kii finnaal xoli nit ñi mooy maanaam di def definu kuy finnaalaate xamee melo ku finnaal daanaka xamoon na ko jàppee dëgg-dëgg waaw xamoon na ko jàppee daal sinatu maasuqin taaraf ku ñu sappu moom mooy finnaal comme ni nga xamee ne kiñ day finnaal mm-hmm. walaw ne atiqin ak meloo aji sopp mm-hmm. te nag moo xam ne sufratul law ni ki teg sa la ne kii sopp na ba cool mm-hmm. ba nekk ci cool wuhubbuhu sopp diinaar haqaiqi fa borom xam-xam yi yadoo mu hoote ila irtikaabi soxtil xaaliqi jëm ci toggo sanjam aji bind mu ne am no ku ku ko bëgge mm. mën na la yóbbu ci mooy yàlla mm. boo ca seetu sa digganteeg yàlla mm. mën na la yóbbu ci toppoo sànjam yàlla annaaru axiru dinaarin nataqta bihi mooy nit bu ne dinaar naar mooy mujj ci gémmiñam te naar safara lay firi annaaru axiru dinaarin nataqta bihi mooy nit bu ne dinaar naar mooy mujj ci gémmiñam te naar safara lay firi wal hammu aaxiru haasa dirhamil jaari mm-hmm. bu ne dirham mm-hmm. hammu mooy mujj ci gémmiñam mm-hmm. te hammu njàqare lay firi kon nag al insaan bayna bayna dinaari wa dirhami su fekkee ne war a nekkul ci moom xolam du dañ di jànkuwanteeg hammu du dañ di jànkuwanteeg naaru loolu lay junju an naaru aaxiru dinaarin nataqta bihi wal hammu aaxiru haasa dirhamil jaari fal maru baynahuma ma lam yakun warian muaddabul qalbi bayna al hammi wan naari noonu daal la demee dëgg dëgg noonu la demee de waaw boo sopp dëgg dëgg dëgg na dem ba moom la yóbbu waaw boo sopp diinaar inde sawil xaqaayiqi fa mu xaqiqoona yi yaduma dana mu woote ila sikaawi suxtil xaaliqi dem ci toggoo sànjam aji bind ji yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne banu Israil hmm. dafa amoon ñetti nit ñi yàlla nattu woon hmm. kenn ki hmm. dafa am dafa ame woon yu xonq ji kenn ki ñett lañ mm. gi dafa amee jàngoro ju xonq ji ju tax yaram mi du am kawar mm. keneen gi de gumbo mm. keneen itam na ma affaire balaa waaye ñett lañ sama borom xebal am malaaka ci jëkk a jaar feeñoo na ba àddina lu la ci gënal mu ne ko melokaan wi nit ñi séexloo dañ mu rek moo gën ne malaaka mi rey ko feebar bi wét mu ne ko ana xeeti xalal yi bu la ci gënal mu ne man gëlëm laa gëlëm goo xam ne jub bi dafa jege hante mu dem ci Aqra mooy borom yaram wu doy waar bi am fàtte feebar yi ni mu tëddee dajale bi laaj ko lu la gënal ci àddina mu ne lu wér mu ne amul fenn bu am kaw te tam ni ñag ma el mm-hmm. wala gën a ray ko loola jeex mu ko ana ban xeetu xalal nga bëgg mu ne ko man nag laa bëgg hmm. mu jox nag bu xam ne ëmb na bay waaji jur hmm. ci hmm. mu ubbee ko ci nag mu dem ca gumba ga laaj ko la bëgg ne ko man ko gis mu gënal ci mu daal di ray bët bi yàlla dogal mu gis waaye imam muslim mooy solo kenn ki dafa siti sabros kenn ki amee xaran jàngoro la joo xam ne bu dalee nit du mën a am kawar kenn ki de gumbo sama borom tabaraka bëgg leen a nattu xebal ci ñoom am malaaka mu demal ku sitika ne ko ana lu la gënal ci àddina mu ne ko melo bu rafet ak der bu rafet ba li nit ñi seexlu ma nii jógee ci man malaaka mi ray ko loola dëñ mu amee melo bu rafet amee der bu rafet mu ne ko ana jan xalal moo la gënal mu ne ko man gëlem moo ma gënal ñenn ñi ne nag moo ko gënal selum bu baax a baax ba mu ko defee mu dal de ko jox gëlëm goo xam ne bu juróom jege ante la mm-hmm. na ko yàlla na yàlla defal la ci barke mm-hmm. mu demal kaame xaran mm-hmm. bi mooy feebar bu yi nga dana day wala ni daan ko na ko am lu gënal ci àddina mu ne ko kawar gu rafet day tax li ma nit ñi de elee nii ñu bàyyi ma mu ne bu ko de malaaka mi raay ko feebar ba mu laaj ko ana xeetu alal bu la ci gënal mm-hmm. mu ne nag yow mm-hmm. nag boo xam ne mu ngi xam yàlla dafa la ci barke mu demal ku gumbo ko mm-hmm. ne ko ana lu la gënal ci àddina mu ne ko yàlla delloo ma suma ji ma gis ma gis mu raay ko gis bi si mu ne ana ban façon alal moo la gënal mu ne ko gàtt ñu bu xam ne dafa jur gis nga kon ko dee gëlëm i jur bëri lool mm-hmm. nag wi jur bëri lool mm-hmm. gàtt yi jur bëri lool mm-hmm. ki ame gétt ak gëlëm gu ki ame gétt nag gu rëy rëy ki ame gétt ak gàtt gu rëy gétt gu rëy li hasa waadin min al ibil wa li hasa min al baqar wa li hasa min al ganam mooy gétt yu rëy rëy léegi nag malaaka mi nga xam ñëwaloon kaami siti sa ñëwal kaami siti sa hmm. xame melokaan ba ko fekkee woon kera ba ko woon lu gën a melokaan si naqari xol lool hmm. ne ko man de dama nekk miskin hmm. mu xam ne damay dox a dox bu fi sama yaram yëpp tas na sunu daal yóbbal la bu gannaaw yàlla yow la yaakaar dama lay ñaan ci yàlla mi nga xam ne moo la jox sa melawu rafet wii jox la sa der bu rafet bii ak alal ji ji nga dajale nga may ma gëlëm gu ma war bu mën a dem sama jëm waaye ñu ko waree fi dañoo bëri am kooku kër waree fi dañoo bëri malaaka mi ne ko ah yàlla foo naa xàmme naa du yow da nga mosoon siti xamul dara nit ñi da el yàlla wéral la jox la mu ne bu yooyu rek man alal ji dama ko fekk baax ñu naka jekk dañoo bëri alal dama ko doon malaaka mi ne ba ah, su fekkee fa nga fen yàlla na nga dellu jëna nga meloon waa ji dellu jëna meloon siti daal ñàkk si ñàkk gër aw hubbuhu inda dhil khaliqi mu demal ka xame woon aqran aqran bi feewala xam nuñ ko wala fale te melawam ko fekke woon ne ko man de waaye dama sonn lool dama bëggoon ku ma dimbale gis na bu baax a baax kooku ne ko ah al-huquuqu kasiira waaye waree fi dañoo bëri. ma ne ko pourtant dama ne xam ni naa la de. Mm. ma ne ko ma laaj dama ko doon. Mm. ma ne ko su fekkee da ngaa fen. Mm. yal dellu ca na nga meloon. mu ñëw ci gumbu ga. ñëwee melokaanu ku gumbu. ne ko kiiree nit la koo xam ne miskin la. ku ne ci yoon la. dafa dox ba tax. ah suñ toll nii de. ah sonn naa de lu ma jàllale daal laa bëgg te ci gannaaw yàlla yow ko yaakaar dama bëggoon nga may ma ci yàlla mi may sa gis bile nga jox ma ab gàtt bu boo xam ne dama jëlee ci tukki ni waa ko man de dal nii gumbo bi taloon na ma de yàlla moo ma delloo suma gis rek kane yàlla mi ma defal lii may ma halal ji ku mel ne ma meloon bu dikkee dama ko ci koñe dara fii daal fi jëlu yaa ko bëggul man ko fi jëlu yaa ko fokkusu ma siita wata ma siita malaaka mi feeñu ko ne ko jëlal sa alal ji nga di ko jëriñoo lew na la yàlla gërëm na waaye sa bokk yële demam yàlla sànj na leen man amu soxla ci alal ji téye ko di ko jëriñoo yàlla gërëm na la sa bokk na yàlla na leen waaw waaw muslim moomu solo bi nga téere bi mboolem téere diine ji su may alquran benn bi ci gën a def téye kenn bu baax a baax mboolem téere diine ji gannaaw bu alquran bi muslim nga ci gën البيض مسلم قبله الكتب المسلمة إمام مسلم وقصر زي مسلم أبو جلال والعالمين دين وبه صف دينا عند سوي الحقائق يدعو دنمه إلى ارتكاب سوء القالق jëm ci toggoo sanjam aji bind ji lawlaahu bu duloon dinaar lam tuqataa dee fu dagg yaminu sariqin ndeyjooru sàcc sàcc ñi da dagg sa loxo fitna joojule sallaw dinaar a ko fi andi de waaye bu amutoon kenn ku ne man de dese loxo heure bu nekk de dina wa saariqu wa saariqatu faqatao aydihuma jasaan bi ma kasaba ba maag na kalan min allah tafsirul Qurtubi mu ne xëy na càcc gi li tax ñu santaane loxo bi mooy loxo loxo mooy suute bu gën a am solo ci càcc mooy jumtukaay bi gën a am solo ci càcc subaana liggéey bu bon bi jumtukaay bi ko dàq nañ ko dindi ci nit ki loolu mooy tëral la borom sariya bi telgu bon bi jumtukaay bi ko gën a man nañ ko dindi ci nit ki moo tax nit bu sàccee ñe nañ dindi loxo seetlu nga baax a baax mu ne xam na yaa ngi may xaar lu tax nag waxuñu góor bu si naayee nañ nañ dindi kanamam nag mu ne xam naa jomb sax xel a ngi dem foofu waaye nag dëgg-dëgg bokkuñu nag mu ne waaye dëgg-dëgg loxo nit am na ci ñaar man nga dagg benn mu dese benn su ko demee mu am lu mën a doxal ci maslahi dundam te cër bëre benn ne la nit xam mu ne te itam loxo lu signalé wala feeñ kuñ ko daggee ci moom rek ñëpp dañ xam ne dagg nañ ko ci moom gàcce googu xamee ci dagg loxo man daa amee ci dagg cër boobu ndax dafa baaxoo ñiiku nag mu ne te itam mu loxo ngirte du jee juddoo te nag mbir mi dagg ngirte bokku ci te cër boobu indi man dindi mar naa dindi dagg ngirte mooy tax doonte bon na lool itam duñu wax ne cër bi ko nit da defee nañ ko dindi duñ wax loolu duñ wax loolu waaw mu ngi ci tafsirul Qurtubi bu may firi wasaariqu wasaariqatu faqta'u aydiyahuma mos naa ko jaggis yàgg si noonu nag waaye mos naa ko jaggis dina ko baax wala badat li konoon du feeñ maslimatun tooñaange min fasiqin ci fasiq kenn ku baax di agressé nit di sàccal nit di jël ay yëfam mm-hmm. yooyu bu fi dinaar ne wutoon mm-hmm. kenn ku ne dana xel mu dal ci diggante moom nit ñi mm-hmm. walas ma as ni ko noon du jàpp baaxiloon aji nay min taarixin ngir aji dikk a gan goo dikk nga de ko masku ak itam de ko sëgu ak de ci ku naan a sonnale yooyu ay mbir la yoo xam ne jagul ci diggante nit ñi te nag dinaar moo ko fi indi wala sa kaa ni ko noon du tawat almamtoolu ku ñu yàggal botam mat la naa yàq yàggal aji gàllankoor diw sàngam daf ma négligé ci suma àq léegi moom daf may tardeel mu ngi may lii mu ngi may la xeet si yooyu yëpp dinaar moo ko fi indi waaye boo amuloon du fi am wala soxen sa ni ko noon déefu muslu min hasoodin ci aji hañaan rafiqin ku daaji sànni gisam naka noon de xame looy bañ ñu gis diw sàngam bëgguma mu gisal ma nangam façon yi mel noonu yëpp dinaara ko fi andi waaye su dul woon ak moom ñëpp doon nañu ko doon andi wala toyata dee fu muslu min ha doodit ngir a jaañaa rasiqin ku daa ji jam ku daa ji sànni gisam wasarumaa his ci li nga xam ne fii nekk na ci dinaar min al xalaayiq ci jikko ay jikkoom nag ba ci gën a mooy an naka luy mbir lay sa yoon yi du jëriñ dara han ka ci yow fil madayiqi ci xat-xat yi illa ida farra ndare boog daw na mu firaaral abiqi kem daw ak jàmbu daa ci daw jikko mi bi ci gën a doy waar mooy boo tolloo xat-xat balam lay dimbali dala sori jëkk te mu ngay nekk ci sa loxo du la fajal dara dafa génn doog la fajal dara la ne man pare naa ci yow tey tey pare naa ci yow tey tey waaxan dana ma héemu li man ñaal koo xam ne yàq di foo dana ko sànni min haale xin tukkee ci njubu doj waman ak ki nga xam ne isa najaahu bu ko déyee najwal waami xet déyeg aji soppu xaala mu wax la hoo ñaal ko xawlal muhiqi waxi aji dëggal asadiqi ku daa aji dëggal ne ko laa ra'ya fii waslika lii fa faraqi koo xam ne daal su ko amee bu lu ñor dikkee mën na koo ko kooku moom moo ci jar naw ak ki nga xam ne bu ko dinaar dikkee ruqitam lu teel a jaadu rek anam ko anam ko ko jaadoo jëlee la koy jële li jële ci anam gu jaadu itam lim jëlee ci anam gu jaadu itam fa mu war a dem la koy def naan ko laa re la rëya de pexe lii dama ñaal fi wasli ka ci sag jokk ba pare tàggool ak man lii la wax xaalis ne fa xultu wax la woo ñaal ko ma ko e maalaf lu màgg axsara baril na wabla ka sa taw waame ma ne ko ah yow mu tafannin nga borom manoore nga dëgg-dëgg daal ku mënee nii nga mënee nale adabul alfaasi qawli laka xub waamaru nutqi bil hal dafa am koo xam ne loo ko mën a wax lu abi du ko sax dafa am koo xam ne loo ko mën a wax lu abi du ko sax ma ne ko maalaf lu màgg axsara baril na wab la ka sarta waame mu ne fa qaala mu ne wa sartu sarta am la ko moo gën a moom nit xam nga toppatoo li sartante toppatoo li sartante dara am na ko xam na ko wax lu muy am it ko sax day wut rek day ko am rek mu ne fa nafatoo ma jox ko hmm. bi dinaar yi ci dinaar asaani bu daa ji ñaareel ma jox ko dinaaru ñaareel bi wa qultu ma wax la wa ñaar ko ma ne ko am wisuma lii bil masani ci fatiha fa alqaahu mu sànni dinaar fi fi fa mi ci gémmiñam wa qaranahu mu lënkale bi taw amihi ci séexam mu jël ko wala ko morom ma wan mu wàññeeku yahmadu mbirom dana mu sant maxdaahu xëyam wa yamtahu te dana mu tagg annaadiye pencam wana daaw ak tabam mu bàyyi ko ci pénc ah xam nga geneen soo waaye tey de neex na daal ay sang ngeen na leen mel la lewan te mu ay xayru sa ba sayr na sayr dëgg dëgg daal nun ngeen mel daal qaala al haris ibnu hammam haris nee na fa naajaani deyaleeg man qalbi sama xol bi annahu ci naka mu abu zaydin su ma xelaat jox ma ne kii daal abu zaydin waa na taaru jëw ak naka soo xam li kay din ngir pexe la xam naa sax dullaa ko waaye pexe ma àgg ci moo ak kenn ñeeg soxna fa tantôt ma del si la ko ma ne koy eh, baax na waaye nga wàññeeku wa kuntu ma ne ko xan xarif sax ma wax la wañaal ko ne ko xan xarif sax xamees na la bi wasika ci sax njam mooy ni ngay taarale wax fastaqim jubal bi mosika ci sa dox ñu ne ma ne ko xammi nañu la wudul ci jëmm ci itam di kàddu gi taxawal ba mu jag xammi nañu la wudul jëmm ji de kàddu gi rek taxawal ba mu jag fa qaala mu ne in kunta boo nekkee ibna hammaamin mu ne ma su fekkee xaaris ibna hammaam nga e fa huyita na yóbbu na la bi ikramin ànd ak waxayita te itam yàlla na nga dund bay kiram ci diggante ay way tedd ndax ba day xaari asalaamaaleykum waay ñu ngi lay nuyu nuyu respecté bu baax ah, ñu ngi lay ñaanal te war bu ne nga nekk ak ñu baax ñu amal jàmm noonu la nuyoo fa qultu ma ne ko ana man alxaaris man la xaaris waaw fa kayfa la xaalu ka sa wal xawaadisa ànd ak xew-xewi jamono ah ana na nga def ak yëngatu yi rek na nga def ak jamono bi fa qaala mu ne ma ataqallabu maa ngi jàllar beku rek fil xaalay ne ci ñaari mbiri boo seen wencu waraxaa ak yomb waan qalibu may jàllar beku maa rixay ne ànd ak ñaari ngelaw yi sansayen ngelaw lu tat waruxaa ak ngelaw lu neex mu ne xam nga comme doxin waa rek tey mu neex ëllëg mu demee neneen rek innama dunya hibatun wa awarin mustaradda shiddatun ba'da raxain wa raxaun ba'da shidda noonu rek noonu lay dund rek comme ñëpp innama dunya hibatun addina ay maye la wa awarin mustaradda ak yable yu ñuy nangu shiddatun ba'da raxain wa raxaun ba'da shidda li nga xam ci addina foo dem rek moo fa nekk ku doon la nekk rek ataqallabu maa ngi jàllarbeeku fil xaalayni ci ñaari mbir yi rek bu sin weñtu waan qalibu maa ngi jàllarbeeku maa rixa maa rixayni ànd ak ñaari ngelaw yi sans fin lu tal waru xaa ak lu yolom wa qultu ma ne ko kayfa daayta naka ngay fasee ne alxasala soxma misluka te du sa kem man ko xam ne asala ku wërante la man ko la fekk ngay sox soxna yow ni nga toll déggoo la tappale la ko yow ngay sox soxna yow ni nga toll déggoo la tappale déggoo la caaxaan la ko ku la fekk ngay sox soxna la dara jot yow ni nga toll déggoo la kafay kay ba daay tan naka ngay woote alxasala sox omet lu ka te du sa kam man ko xam ne adala wërante yow ni nga toll déggoolu jaxam parce que farra dal di nëbbu bisroo mbégam mooy talle xar kanam alladi gi nga gi nga xam ne kaana nekk na mu tajalla de feeñ xam na fireeku woon na waaye wanaat na ma beneen telmaay ndax dama kafu te mu foogoon ne damay kaf te dëgg dafa weex wala boog damay kaf waaye kaf gi dafa niru dëgg te bëri na ñum neexu kaf gi niru dëgg ñëw mala daal ak telmaay dafa mu sensé na su maasa da topp mu saddihiina walla ba mu joxee gannaaw mu joxe gannaaw na di wéy nii ne taarajtu soox soxlu naa ay nag laa raxbatan du ngir xamee fi naa rëcc ci soxla maa ngi sox soxlu waaye du bëgg a nekk laa ko de walakin li fi nekk li aqra ngir naa fëgg rek baabal ma ji buntu yër yër waaye ci pexe yi la bokk rek ci pexe yi la bokk rek walakin li fi nekk li aqra ngir naa fëgg baabal ma ji buntu yër yër mooy ci pexe yi la bokk rek wal xiyaag ma sànni xam ne sama bopp sama buum ala xari bi ci sama joggare ak itam nag ma mën a moom sama bopp dëgg-dëgg moom ndax nit ñi niñ mën a muñalee kiñ jàpp ne dara ko jot mën nañ koo muñalee kiñ jàppul ne dara jot na ko ki wane ne dara ko jot itam na mën a layalee nit ñi ki dara jotul mënu ko loolu moo tax wal xiyaag ma sànni xam ne sama buum ala xari bi ci sama joggare wa aslu ka masoobu maslaka man soo waaye ku xam ne xat maraja jaxase na fa in laama nii bu ma yeddee al qawmu nit ñi suñ ma bëgg a yedde qultu ma adiroo ngantal leen yàlla mu ne wala halal araji harajun la leen di arajin warul aji soox min arajin benn bàkkaar waaw basata topp mu tàllal yeddahoor loxoom baadama ci gannaaw li nga xam ne am sataroo satt na ko mu wéyee baagal mu tàllal loxoom pour jël dinaar bi fa qaala mu ne an jasa farrut ma waxat wasaxa xaalul fitraat an jasa na teewal farrun gor ma waxaat a sëhalam lam dëlewal ay woon lu may waxoon saxaar na taw xaalul niir israada ba mu dëngoo ay wa ku dëngu woon tawat léegi daal ku waxoon lu yaakaar soto dëggalal yàq xaalis ne fa nabattu ma sànni ak dinaara dinaar bi ci lay jëm ci moom ma sànni ko ko wa qultu ma ne ko xurru jàpp ko xayra mardubin mu doon dula ku ñu jàppaloo alayhi ci moom ma ne ko jël ko lew na la domm fa wadaahu mu teg ko bii bii ci gémmiñam mu jël dinaar bu teg ko ci gémmiñam waqaal mu ne barikillah bari yal na nga barke allahuma yow borom bi ñi ci dinaar summa sammara topp mu waguli li sinaa ngir wàññeeku baada tawfiyati sanaa ci gannaaw ma sam tag léegi nag bi mu defee sant yi nga xam ne ñaare kuñ defal siraat nga dana koy def mu ne kon baax na man ci yoon aw yoonam di dem Arif nee na fa nasaa dal di sosu lii ñu xaal ma min bukaati yi ci mbóoranteem naswatu xaramin man di cofeel sahalat kul yombal na wax ne yéen ci man ci istimna consiran min sosat fay ak geneen fay waxtaan wi nag ma def cee doyal te bëgg mu dolli jaral na ma ci waaw fa nasaa dal di sosu saa yi ci booranteem nasru tuxarami man dig cofeel fa la ko yombal na alayya ci man kii dina bootiraam man foofu keneen fay fa jaratu ma génne dinaaram dinaar aaxara beneen ba mu ko defee ma génne ak beneen dinaar fa qultu ma ne ma wax la ko ma ne ko allaka ndax ñi al na la ci an tadummahu ci bundam ne dafa yaral la wax ñaar yoo xam ne bokkut ci mel ni mbir la loo xam ma ne est ce que mën ngay xas bi su ma tatu ma koo topp nga tatu mu ne fa am mu dal de sadd mu tëjilan daa juri mu buur sadd way li muy wax nag dund ko dafay wax rek ci xel mi laan la ci wax wa mu jooru ajilan daa ji waxte fowtee gaawan an sabban lahu min xaatiin mumaadiqi asfara bi wajhayni kal munaafiqi yabdo bi wasfayni li ayni raamiqi zinati masuusi baloon yaa tas ba mag mu ne tabban halaku lahu ñaal na diina mu ne boobu mala moom xata tabtan min xaatiin ci aji buruj mumaadiqin ku daaji njar ca feel sallam xamul kóolare jàpp ak fara kuraajo xonq ci wajhayni borom ñaar ci borom ñaari fanam kon wajhayni la ku teew rek mu mën la ne yar waaw boo joxee gannaaw pare na ca yow dina am mun la bu nee ci loxo daal waaw mooy sa doole ji waaye su ci génnee nag su bañ a doon doole yi keneen ci sa kaw ñu daal lay defee rek waaw bu jënoo yow daal wan na melaw naa ci yow la su ngeen doree mu ŋàññi la fay bëndal daal mooy nit ku mel noonu la rek waaw kullu ladi lastu adri min salal buurihi anasihun amala mukkum yunajini mu nga xam ne man xawma xarit la xawma jàngkat la xawma naxekat la nanu inni la inni la tusiru mimma kuntani ajaba daal heure bu ñu méngee wu ci sa doxalin suñu diggante yëkkul sa su jub bu sa faral min sa taasu ah loxo bii di xaay loxo bii di tëj ah yëkkul sa su jub bu sa faral min sa taasu waxtaabuni inda aqwaamin wa tamtahuni bi aaxarina wa kullun anka yaatini yëpp ma ko tasaaguni inda aqwamin wa tamdahuni bi axarina wa kullun anka yaatini haadani shay'ani qad naafayta baynahuma fokkum lisaanika an satmi wa tabyini dëgg na nga xam ne daanaka ñàkk a gën a am tuut comme ni ko saa yër bi gisee daal xelal moo xaw a di ko kii nag. yab doo dana mu feeñ. wax koy ne ci ñaari melo. li ayni raamiqi ñaal bëtëb aji xool boo koy xool ñaari melo lay xamee melo yëram tëlu lay xamee waaye muy jël sa xol ah dafa amee melokaanu su topp basalul dara tey sonn la sonn lay puni dina si mensoo ten dara suñ topp moom la xamee muy jëlee xol yi walaw ni asiqin ak melow aji topp muy subratul law xam ne day tegtale tollu sax waaw sena bu baax waaw ajibtu minhu suma adri asufratoo waaw min fursatil husni am xaw du sataki xawa lu mu ci doon waaw lu mu ci doon yonente maasuqin tarab ku ñu walaw ni asiqin ak melow aji topp amee suufeetul law ni mel ni ku yërëm bu xubboo sopp tiinaar inda dawil xaqaiqi pour mu xaqiqoone yi fa borom xam-xam yi yedoo dana mu woote ilartikaabi suxtil xaaliqi jëm ci toggoo sànjam aj bi nee na bëgg ko mën naa dugal nit ci muy yàlla dafa war a doon lu nekk ci loxol nit di liggéeyal nit ki waaye war na nekk ci xolam nit nag te xawoon na nekk ci suñu xalaat kon mu dégg nga ah annaaru aaxiru diinaarin na tax na bi mooy nit bu ne diinaar naar mooy mujj ci làmmeel te safara lay jëm wal hambu aaxiru haada dirhamil jaari bu ne dirham làmmiñam ci ay jaax la day firi annaarul aaxiru dinaarin natabta bihi wal hammu aaxiru haada dirhamil jaari mooy ba junj la ah annaaru aaxiru dinaarin natabta bihi wal hammu aaxiru haada dirhamil jaari fal maru baynahuma maa lam yakun warian muhasabul qalbi bayna bii naar naar mooy mujj ci gémmiñam te safara day bëri mu ne dirham dëmm mooy mujj ci gémmiñam te jaaxle day bëri kon mu lay xamal ne diggante ñaari yooyu ku ci nekk xelum kon sa war a yàq ñaari yooyu moom ci mujj mooy jaaxleem àddina ak safara waaw kon man ko bay na mu war a nekk rek su doxoon rek su ko defee su fekkee nit ki ci dugg dafa nekkam waaye nag warul nekk ci xolam nit ki nag taxawal moo mu ne warul guro topp diina ànd dawil xaqaayiq ba mu xaqitoon yi ba borom xam-xam yi yarmoo dana mu woote ci la fekkaa bi surtout xale jëm ci topp ca sañ ak bi allah lu bëri ci rafetal ak mosañ ñu ñàkk ko lu bëri ci nuroo ak mosañ ñu ñàkk ko amee jikko yu rafet lawlaaw bu duuloon dinaar lam ko sotan def bu dagg yeminu saaratin dajooru sotan daj ñu dagg sa loxo fu dina jóot dinaar rek moom duur bi wala bana seni konoon du feeñ matale ñu sun tooñange min baata sin ci baata te doon ko soxla mu toroon lu ko gaañ na wala xëy na ñàkk jàmm góor yi naa rek wala suma as wala suma as ba nekkoon bu jàpp baaxulum aji nay min taare si jur aji pëgg am gan bi ko ñàkkee aaj ñu bëreante murura dinaa rek moo ko indi dinaa rek moo ko indi xañ nañu jàmm nekk xañ nañu wasaka ni ko noonu du tawat al mamsuuru ku ñu yàggal gotam maddal xaye ku yàggal ak aji gàllankoor ko am na la war a fay léegi li si la bëgg ci ji mu tawat wala su ayada te ni ko noonu diir bu muslu min xasootin ci hañaan rasatin ku daa ji sa def am am alal ju la mën a fajal soxla ragal ba doo nelaw coono yooyu yëpp dinaat munu wala kaay la ni ko doon dégg mu munu min xadoo de ci tooñaan ah, rasa kudaay di sànni ci sa wa solu maa gis ci nga xam ne fii yi nekk na ci dinaar minal xalayo ki ci jikkoo ay jikkoom nag ba di yéen mooy am na ko luy mbir lay sa jëriñ dara muy ku jëm ci mantu wëlit la fil madayiqi ci xat-xat yi illa ida farra daribu dawru firaaral xaabit kem sawa jàppuraadi mooy li gën a la fajalee mu teggi la lor moom dawru furiha sa liggéeyam ne rek sa mu doon la kon liggéeyam la du ko liggéey la ndax xamul kóol lañ ci waa an dana ma yéemu li man ñaar koo xam ne yàq bi boo dana mu sànni dinaar min xaaliqin di bu doj koo xam ne bu mu fekk mën na koo jàpp sànni moom foofu muy waay waaw mooy ku du mën a jàpp def ko ci loxo la bu ñor xam ne nekkul ci xolal wa man ak koo xam ne isa najaabu bu ko dinaar bii najwal waami xittiir aju topp koo xam ne bu ko dinaar bii mooy buñ ko jëgal nga ci tax mu wax la woo ñaal ko xawlal mu ngi waxi aji dëggal ak saadiqa suraa aju dëggal ak dëggum ak ñoram dana tax du fàtte li mu war a nangoo jël daara yo de pexe kuy war di ko ci sa jom di ñaal ma ba pare sàkk ñu kii rek kii rek moo koy amee maam waaw ñun loolu la ñu ne te dundee ari ne fa qultu ma wax la ko ma ne ko maa la lu maa jot ansara ba dil na mu wab la kasa taw bu dëgg dëgg daal yor tamit dëgg nga te itam bind kat dëgg nga fa qaala mu ne wasatu sart de am la ko moom la sama dinaar xam nga li nga taa jom na jom li nga xool a ansabul alfa du xaw di la sofu tuuru moom am rek ko yow mu dégg yow nga rek moom yu mel ñoom déggoo rek day ni ko am rek ansabul alfa du xaw di la sofu tuuru moom am rek lay ko war a wax ne fanafaxtu ma sànni ko bi dinaari dinaar bi ma jox ko bi dinaari dinaar bi asaani bulaaj ñaareel ma jox ko dinaaru ñaareel wa qultu ma wax la woo ñaar ko ma ne ko am gis ma jéemu ngir ma tànn ma ne ko jéemu fa alqaahu mu sànni dinaar bi ci bangu yi ci gémmiñam wa xaraa na ko lëkkale ko ci dawaan ci jéem yaddanu muy dagg annaabiya ñoom pénc wala daaw ak mayam annaabiya pénc wala daaw ak mayam قال الحارث بن همام حارث ne فناجاني بي عليهما قلبي sama xol sida ndax mënoore yi moom laa ko xamee waa na taaru joro ak naka tooxam ñu kenn ci yow du toox bi muy toox du dara lu ne ci moom waaye fexe mën a jëlee dara ci moom fa taat joro ma baal ma nga des kultu ma ne ko xar xarit sa xamees na la wasi kay ci sa taaral wax parce que fi mu jubal ci ma si ma ne ko xamume nañ la du dara yi kàddu gi wane na la kon defaral sa taxaw jot comme sa xar xarit sa xamees na la kay ci sa taaral wax da dox fa qaal mu ne ma in kunta boo nekkee ibna hammaamin di ibnul hammaam xaalis bi di hammaam wuyita na yóbbu na la bi ikraamin am la karam waxa yita te yàlla na nga dund bay na kiraam ci diggante ay ker mu su fekkee xaalis la man lay nuyu nuyu bu ànd ak caral man lay ñaan bu di sant sa xeyal bu may ba kuntu ma ne ko ana كيف نجعل مثل التصوير كيف الخواتيم حتى توصل الجمهورية من يبقى ننقل يبقى توصل الجمهورية فقال mu ne ma ataqallabu maa ngi jàllal bépp rek fil xaalayni ci ñaari mbir yi bu suñu wéññi war a xaa ak yomb rek ah comme ni nga xamee rek addina moom tey mu neex ëllëg mu naqadi rek addaru yawmaan waajibaatun wa awaarin mustaradda mu ne àddina ay maye ak i xable yu ñuy nangu la rek ah innama dunya hibaatun wa awaarin mustaradda ah innama dunya hibaatun wa awaarin mustaradda fiddatun a rasaa'in wa rasaa'un baada fidda fiddatun baada rasaa'in wa rasaa'un baada fidda mu ne daal waa ji waxee ko noonu wa anqalibu maa ngi jàllal bépp rek maa ri xëy ni ànd ak ñaari ngelaw yi saa maxeen ngelaw du tat waru xaa ngelaw lu yomb mu neex rek ma nekk ca neex ga ba mu jeex rek métti jub rek ma nekk ca métti ga ba mu jeex Arif ne bokkul sama ne waaw yow sarra dal di nëbbu bibru woo tàlle xar kanamam alladi gi nga xam ne kaana nekkoon na mu tajalla defee xam na rek ci ko war na pour waxtaan waaye bi ma waxee lii rek dafa rataa ndax ci ko daal na kër su ma sala topp mu sarkatina wala mu joxee gannaaw na ko ji lay wëy ne taaraj kulla ragbatan fi laraj walakin li aqra bab alfaraj walqiya xabdi ala garibi wa atluka maslaka man qad maraj fa in lamani الصوم تنصدر فليس على أعرف من حرج mu ne taaraytu soox naa laa raxbatan gun bi xemem bi naaray ci soox ci soox maa ngi soox de waaye du bëgg a doon daal ma sax walakin li fi nekk li aqraa ngir naa bëgg rek baabal fële ji dama nekk ci ay tolof tolof rek te dund ci ay xat-xat te def pexe yu mu génne jafe buum xiyaas ma sànni xam ni sama buum na la xaari buy ci sama jogare ak itam ma moom sama bopp leen ni moom ndax day naan laa mu jot sa waa lu sa sunu sax yàlla mu ne wala ala danga ji baax na kooku maqaama bu ma teel ci maqaamaat yi jàngale mooy li ñuy wax taxayur hmm. mooy menn mbir hmm. nga wax ci wax bokkut hmm. te yëpp di ah, tagg nga ko xas nga ko li ko xasee kan moo ko weddi li ko xasee kan moo ko weddi nga tam nga dali kan nga teg ci kaa ngay kenn moo ko weddi lu mel noonu la ñuy tuddee ak taxayuru loolu lay jàngale ci maqaama bi ndax dafa làmboo tagg dinaar ak xas ko mu rawaa solena alxaaris xaaris ibnu hammaam xaaris moo def riwaaya xaal mu ne nadamani noose xoon ma mooy dajale xoon na wax daanan afi xarit lii ñaal ma naa am pénc dama doon benn pénc boo xam ne man ak samay xarit la dajale woon ñu bokk muy pénc moo xam ne lam yéexib sooyut fii ci moom mën naa aji xoote muy penc moo xam du am waxtu wuse nit du nekk du waxtu wuse xoote te duñ wala taba te musu caa géey hmm. mooy musu caa bañ xat hmm. foo naa din koccak doju béy hmm. mooy kenn musu ba kos te tàkku mooy dox fa soxla te sotti wut mos daa am ndax ña fay nekk ñu am solo lañ wala da kat musu fa tàkk naaru ay naa din safaraw dëngoo te itam ñuy rek ñoo fa nekk lu ñu doon wanante jafe loolu am kenn bu baax a baax naka naa ci muro atul xadar ci la bokk fa bay naa naxanu diggante baa ñun na tajaaza bu ñu ngi mayante ñu ngi ñoddoo muy ñu ngi joxante atrafal anasidi ay peti sadd wëy ñu ngi joxante sadd way hmm. wuyu ñuy sadd hmm. wana tawaradu te ñuy roodlante hmm. turafal asaani di way rafeti isnaat isnaat mooy boole baat ak baat mu nekk jumla di tegtale sax ak mbir ñaxal mbir wala dàqu mbir walit mbir saydun qaim boole nga boole saydun ak qaim dañ ciy déggee subuutul qiyaami li saydin hmm. loolu isnaad la hmm. maqaama saydun hmm. boole bi nga boole maqaama ak saydun dañ ciy déggee intifaaul qiyaami saydin loolu itam isnaad la mooy ñu ngi waxtaane waxtaanu adab rek waaw ah, mbiram xibaara sàngam mbiram wéy sàngam mbiram xutba sàngam mbiram risaala sàngam it ci mbette rew waqafa taxaw na binaa mm-hmm. ci nun sax suñ jëmm mm-hmm. suufam ko ak si mm-hmm. ku xam ne alayhi nekk na ci moom samalum sagar ay sagar nag la am wa fi miseeti yi nekk na ci doxinam xasalum soox dox bi jabul day soox fa qaal mu ne ko ko wax ne yaa xayra daxair ba mu xam tànnee fi ndaxañteef yi yéen ñi nga xam ne ku leen yaakaar mel na ne denc na lu tànn wa basaa'ir al-asaa'ir tey mbég tey mbokk yi yéen ñi nga xam ne ku leen bokkee ku bokk yéen daf leen di bégee da leen faaroo ay moo yàlla na ngeen xawu sabaxan ci suba noonu la arab di nuyoo moo tolloog jàmm nga fanaan ah suba si jàmm asalaamaaleykum nuyoo diina la waaye du nuyoo waxi arab nuyoo diina la ay moo yàlla na ngeen xawu sabaxan ci suba waana ay moo te yàlla na ngeen xawu istibaaxan ci naan ak suba yàlla na suba gi neex yàlla na naan gi dox wanzuroo te ngeen xool nag te nag boole ji ngeen xool mm-hmm. ila man jëm ci ku xam ne mm-hmm. kaana nekkoon na musanna di yin de borom tab de borom de borom de mm-hmm. de borom pénc wana dan ak tab ngeen xam ne seen gën ak tey gii majlis bu xumb la xamoon nit ñi daa fa dajee te itam ko xamoon xalal la daan te jox nit ñi wajidatin ak koom mm-hmm. wajadan ak may mm-hmm. ku xoomaloon la mm-hmm. ku daan maye la waxaqaarin ak i pàkk wa quran ak i dëkk suufiyaatu itam moom la helifoon wa miqaarin ak i bagaan wa xiram ak nganale te itam quran dajale nit ñi da dimbale da leen la wajidatin ak koom wajadan ak may wa aqarin ak pàkk wa quran ak dëkk wa miqarin ak i wa qiran ak ganale seen ganal tey gi daal ku amoon dara la te ku ci daa def lu baax la ku ci daa jëriñ nit ñi la fama zala dañut bihi ci moom xutóobul xutóobi ñëkkalëg mbambare yi mooy mbir yu diis waaye ay mbir yu diis de wàcci wàccaan ci moom hmm. ñaan te yàqal nañ ko nangam hmm. tey nangam jot na ko hmm. waxuróobul kuróo bi ak ay xarey ay jaaxle di ko dikkal yu ko yóbbee ci dafaatal xalal toggo coono yu diis wa sorari soril xasoodi ak njarmente xayi ku xañaan ah léeg-léeg itam yàqkat dikkee ko boor kon siyaabu nuwa bi mm-hmm. ak wutu xante xew-xewi jamono yi mm-hmm. ak sóot yére way ñuul mm-hmm. ci gàttal daal ay tiis di wutu xanteeg moom di wutu xante ci moom di ko dal dalaan bu li tegee ko rek lii di kat xataa safirat bu fee raxatu tenqam ba tey amutul dara xalal yëpp dem wa xariat te wéet ak raxatu dingire ba palaasam bu xom ba ña fa daan dajee hmm. kenn di gëtu hmm. waxaara te ngiir almam ba moo balluwaay ba hmm. nam daan def da mën a génne xalal mënatu koo def génne xalal ndax fam daan denc dencatu ko dara wanna baa te becci ngal ko almar ba moo wàccuwaayam daan toog këram nit ñi da ko muy leen jox tey mu xamul lu mu toogee këram pour soxlaam day génn wan baat te beccingal ko almarban wàccu waay ba waa xawaat te wéet almajmaa dajee waay ba palaasam ba ñi daan dajee mu xumb lool boo demee tey mu ne xaram waa xadda te fënd almadjama tëdd waay ba dalam ba mu daan tëdd bu yàgg la ca géjee tala tëdd wastaxaala te jàllar beku mm-hmm. alxaalu mbiram mm-hmm. mbiram lépp daal mooy jàllar beku mm-hmm. ay man-man la woon ak njëriñ ci nit ñi tey nag muy ay lottu ak loru soxla nit ñi wa wala te xawu alxayaalu njaboot bi njabootam gëmmi na loon te tey ñuy dund ci tumaranke ñëpp ngi yow waxala te féex almarabitu xeewukaay yi fam daan xeew gélémam ya ak ya ak nagam ya ak gu sew ga amatu dara lu ko xeew daji kese ñoo fa ne waxalat te féex almarabitu xeewukaay yi warahima te yërëm ko alxaabitu aji ñee ñe ko doon ñoo démb te ñoo ko tane bay ko yërëm waaw daa te xaala ko annaate ko aji tudd ji mooy xalal ak jur ga dabaatal mm-hmm. ñi ko dégg mm-hmm. amatul xar amatul bëy mm-hmm. amul nag amul fas amul gëlëm amul mbaam amul dara wasaami tooga ji noppi ja xalal ji xam ne buñ ko dencee du baatal bañ dégg ko muy xaalis baag wurus baag yeneen marchandise ye yépp ñàkk na leen warasaa te yërëm lanaa ñaal ñu alxaasidu aji hañaanee wasaam mi toog ndokk mm. ku ñu bañoon mm-hmm. suñ tiis da ko neex mm-hmm. léegi xolam sedd sedd na mm-hmm. ba mu ñoo yërëm warasaa te yërëm la naa ñaal alxafidu aji hañaan wasaam mi toog ndokk wa alate métital mooy xalak wa alate métital bi daan ci ñun addaru jamono almoo xeex bu daa ji métital wal faqru ak ñàkk mm-hmm. al mutqi bu daa ji toroxal mm-hmm. jamono mu méttital mi mm-hmm. teg nañu lu métti ñàkk mi toroxal dal na ci suñ kaw dal bu métte métti ilaa nextaday naa ba ñu dalloo alwaja taññi fi mu xanaa métti boo sax ci ron dëggu loolu moo de suñ dàll waaw métti boo sax ci ron dëggu waxta day naa te ñu lekk asodia pot yaa boo xam ne mos na ñoo galan te jàllu mhm. xanaa moo ne suñ puro mhm. amul dara luñ lekk de mhm. wastabtan naa te ñu biiroo aljawa njàqare njàqare gu fees dell jëmm ba mel ni jëmm ji soxlawu dara xanaa muy li ñoo lekk boobu mooy suñ ñam ilaa nextaday naa ba ñu dallu alwaja taññ mooy métti bu nekk ci ron ndëggu hmm. ci ndëggu ron tànk hmm. waxtaday naa te ñu lekk asoja pot mooy yax bu galan jàllul hmm. wastabtan naa te ñu biiroo aljawa njàqare wattaway naa te ñu leem ala saabal jadi ala tawa ci xiif ak demaale ñàkk a lekk rek waxtaal naa ñu tus ngeloo mm-hmm. waxtaal naa ñu tus ngeloo mm-hmm. assuhaada fokk mm-hmm. ba di taxoo ñàkk a nelaw wastaw tan naa ñu dëkk watan alwihaada ci xur yi fi ne àgg nañ ci ràppate foo xam ne daanaka muru am mooy mbañ rus mayatuñu sax ñi bëgg nit ñi dañu gis dañuy dem ci barab yu ruq defa làqu wastawtanaa ñu dëgg hmm. alxataada dëgg hmm. léeg-léeg ñuy dëgg ci dëgg hmm. watanaasay naa ñuy fàtte fàttelu al aqataada teg yi ay teg yu neex lañ daan teg ci suñuy waruwaay te dem fu ñu bëgg a dem demin bu dal waaye dem man dañàkk te waruwaay xamut ah moo tax ñuy demaale coono de dëgg ci dëgg yi rek andaa dégg man baata ban daka fi mulkin yusarru bihi fa innama baata bil ahlami maxrura nga ne ku nguur naxati ak ku foogate ne buur la xaman fay gént rek mu ne nguur ak àddina gént la Mutaamid ibnu Abbas ku foor la woon amoon tiraanga gannaaw bi ñu jàpp ko jéng ko tëj ko kaso nekk songer ci biir kaso gi nag xasaay di mu ci daan wéy am na ci raay yee boo xam ne loola nga ca am baata ban dëkka fi mulkin yusarru bihi fa innama baata bil ahlami maxrura dama ne waxtaw ta naa te ñu dëgg alxataada dëgg watanaa say naa te ñu fàtte fàttelu alaftaada teg yi wastatab naa te ñu neexlu alxayna dee hmm. almujtaax bu daa ji fagagal suñ dund bi pour ñun dee ak ko gën wastabta naa ñu yéexlu al yawma bis al mutaaxa bare buñ dogal su fekkoon nit moo fi jële boppam kon nekk fi tey da leen tawatal soxla duñu si fekkante doon nañ dem bur bu yàgg léegi daal jekk amoon na tidda nga xamoon na waaye tooga dig àddina jëlee na fa jekk googale su ne lor gu tatee ni ma leen wax nii mu faal min hurrin ndax na fi gor xaasin gudaaji garbal ndax na si gor soo xam ne suñ ko tawatalee soxla bu ñoree nii dana am jomi bañ koo seetaanam ndéet xam na fi mu ndéet ca dara aw samxin wala aji tabe mu asin ku daal di dimbalante hmm. ndax ku ko mën faj xam na hmm. wala ku ci mën a def bu ci am hmm. walla di giñ naa ci buur bi nga xam ne istaxraja ni génne na ma min xaylatin tukkee xayla bokk mu bokk ci xayla wàllan saar mooy saaba yi dalaloon yonent bi Madina ñaari giit lañ muy awsu ak xasraj mm-hmm. dañoo juboo hadi bala yonent bi di ñëw foofu mm-hmm. ñu daan ŋàññante ci wéy am nañ ay daje yu xare yu doy waar mm-hmm. bu yonent bi ñëwee nag baatab lislaam boole leen ñu ànd ñoom ñaari ñëw ñu nag xanaa yàgg rek waaye menn maam moo leen boole maam moomu mooy xëy la xëy na dafa bëgg nga xam ne mu ansaar yu na sabila xëy na xëy la bëgg a wax awsun wa xasrajun humul ansaaru wa xaylatun ummuhumu waxtaaru awsun wa xasrajun humul ansaaru wa xaylatun ummuhumu waxtaaru laqad amsaytu mujj naa axaa xaylatin de borom ñàkk maaga ñàkk laa am li may moom biita laylatin dundab genn guddi reerab tey xaam xaalaa hmm. li ko den may moom hmm. biita laylatin dundab guddi hmm. genn guddi qaala al ibnu hammaam xaaris nee fa awaytu ma yërëm li ma faqiri ci ñàkkam mu ne wax ji daw na yaram torop ndax gis nga ni mu yërëm tax na am naa ci yërmande waaye tegtale na mën a bindu torop ndax gis nga xibaaraat yi niñ ma bëgg a xam ndax niñ mel ci wisar noonu la mel ci wéyam de wala waytu ma boyu ila stimbaati fiqar yi ci ballulu ay xaafiyaam mooy ay daaneeli wéyam ma bëgg a xam nu ci wéy faafastu ma génne dinaaran ak ab dinaar mm-hmm. ba ko defee ma génne dinaar mm-hmm. wa qultu ma wax la woo ñaal ko ixtibaaran ngir nattu ko mm-hmm. ma wax te fekk sax nag dama koy nattu waaye mën naa am li wax bu ko mën doon itam daa koy wax dinaar dinaar ma ne ko imma daxte woo boo taggee dinaar bi nadman ci wëy koo moom lakka ñaxal la xat man ci lu ma ne ko dinaa baa ngi nii soo wéyee tagg ko yow lay sëb dinaar fam baraam mu gaar yum siddu mbiroom dana mu sadd fel xaale ca waxtuwa min xeyri intihaalin ci lu dul askano wayu jàmbur ci saa rek la buur dal di sadd wëy yi di tagg diinaar deful nag intihaal intihaal mooy jël wayu jàmbur tuddoo ko dafa ko la fi indi min xeer intihaalin ci lu askanoo wayu jàmburu mu akrim bihi asfara raaqat sufratu jawaaba afaqin taramat safratu bam xàgg akrim héemu nag tedd bihi diinaar asfara caaje xonq mu ne diinaar ak sufratu law ni yi mm-hmm. raqat xéeme na sufratuhoo xonqaayam mm-hmm. xam naa sufratu law ni melo yërëm borom la mm-hmm. waaye moom nag sufraam bi da koo faggul mbëggeel kon taaram la jawaaba afaqin kay daggaakoon ay gox muy ko xam ne fu ne ci àddina bi rek xam nañ ko fu ne ci àddina bi rek dem na fa taraamat sànneeku na safratu tukkim amul fenn fu mu dul dem maasoratun lu ñu soloo la sumaatuhoo ndéggtalam wasuhratuhoo ak ciwtéem amul fenn fu ko du tuddee amul fenn fu du déggee turam itam xat au dénkiis sirral xinaam mbóotam koom mhm. afirratu ay kororoom salaw mhm. sirru bi ci koom mhm. mu ngi ci kororoom yi waaw ah, fu mu bëri daal lu halal mën a def lu halal de def dañ ko ca mën a def wa qaarnat lënkoona xatratu rot ak diinaar nuj xal masaaxee sottig lëggéey yi fajug xaajooy lëggéey yi muhaawalaat yu bëree bëri bu ca duggee rek dana am najaa dana am najaa inna darahima fil mawatini kulliha taksur rijala mahabatan wa jamala fa hiya lisanu liman arada fasahatan wa hiya silahu liman arada qitala inna darahima fi lmawatini kulliha taksu rijala mahabatan wa jamala fa hiya lisanu liman arada fasahatan wa hiya silahu liman arada qitala wa qara nat lan kuwana nuj hal masaye fajug haajoy lëggéey yi mooy sotti yëngatu yi xatratu hoo rot ak diinaan bi ba sopp loos na xurratu hoo taaram ilal anaami jëm ci nit ñi mu ne nit ñi dañ bëgg ba boo ko xamee rek duñ gisooti sa sikk maanaam xam nga ko moom gisootuñ la demee ka min al qulubi daanaka tukkee na ci xel yi nuqratuhoo to xol yi toggam dafa mel daal buñ koy togg dañoo jël dara ci xol yi boole xaale ci ndax place bi mu ci xol bii ci dinaar ya soolu lay songee man ku xam ne xawat hu làq na ko surratuhoo këmbukaayam mu ne gannaaw xam nga ko wéy nga néew doole gannaaw xam nga ko a bi ci dinaar yo solu lay songee man ki nga xam ne xawatu làq na ko surratoo këmbukaayam waaw wa intafaanat bu jeexee aw tawaanat wala yéex xetratoo géñoom boo fi déggee kuñ naan dafa wéet hmm. doxandéem la fi xamu fi mbokk hmm. wala ñu naan ay bokkam dañ ko seetaan dañ ko négligé hmm. yooyu yëpp fi amee yaa habasa baax na nu daaru hoo warut wu sell wa nadratoo ak taaram na góorgóorlu rek ba am dara waaw su góorgóorloo ba am dara dara jooja dana ko may lam doon war a wut ci mbokk yu bari mm-hmm. dana ko may mm-hmm. lam doon soxla ñi ko taxaw mm-hmm. kullu nidaa'i isa naadaytu yaxduluni waaw ku ne man nga koy xoo ndeg bëgg ndimbalam mu sàgganee la illa nidaa isa naadaytu yaa maali ay sa alal ko on loo ca bëgg rek moom dana moom du la négligé mukk sa alal moom du la négligé mukk waaw ah. ah, waaw kullu nidaa'i iza naadaytu yaxduluni illa nidaa iza naadaytu yaa maali ko moom du ma bàyyi mukk du ma bàyyi sa xislal mukk wa in tafaanat bu jeexee aw tawaanat walla yéex xetratuhoo géñoom yaa basa baax na nu daruhoo wurusam wu sell wa nadratuhoo ak taaram wa habasa baax na maxnaatuhu doy ak dinaar ni mën a fege yu bare bare bari mel ni boo ko amee sag ñàkk yu bari mën nay nëbbu wa nusratuhu ak ndimbalam ak ni mën a nekkee ndimbal kam amirin bari na ku falu buur ku xam ne bii ci dinaar istatabbat la matee imratuhu nguuram bari na ku koy falu buur mm-hmm. fekk dara xam lum jox nit ñi rek mm-hmm. ñi nang koo jébbal baat bi rek mm-hmm. mu falu wa mutrafin bari na ku xawwu mooy kuy dund ci tiraanga ku xam ne lawlaahu bu duloon diinaar daamat saxadratuhu métti lu léeg nga gis kuy dund ci tiraanga te alal rek la am amul juddu amul leneen alal la am waaw bu doon alal du tedd waaw kon moom kenn mën naa teral nit lool wa mutrafin bari na ku xaw ku xam ne lawlaaw bu duloon dinaar daa mat sax asaratoo métti lu kuy dund ci teraanga te alal rek la am waaw wajay si am min bari na xarem njàqare xasamat bu dàq na ko karatu xàkk ak diinaar mm-hmm. lu la jaaxal ba teela nelaw mm-hmm. nga xam ca mu dal ci saasi mm-hmm. loolu dinaar ci hay xalal la ci hay wa badri timmin bëri na xaajo ju an salatu boobu wàcce na ko badra tuho fukki junneem maanaam porte mu ne bu def fukki junneem lu ñu ah, badra waaw bëri na xaajo ju rëy rëy lu jëmmoo jëmmu hmm. te nag lu xaj ci poos ci dinaar rek hmm. mën na ko sottal ba hmm. badri timmin bëri na xaajo ju rëy an salatu wàcce na ko badratuho fukki junneem wa mustasiitin bëri na aji tàkk ngir mer wa mustasiitin bëri na aji tàkk ngir mer te talataa dana tàkk jamratuho xalam bëri na ku mel ba mel ni kuy takk mhm. asara nëbb na moom dinaar mhm. nañ waa ko déyaleem walla mhm. na daldi nooy sirratoo ñëw kaam soo ko gisee ca pet daal ba yoraale ko affaire bi doo rek lépp daal di jeex ah doo yëg daal da day daal di wàcc ah loolu bëri na lu amee ah. koo xam ne foog nga ne tey jii dara dara dara man da tee hmm. mu def hay nga mujj nga gis rek mu ne yesax te hmm. fekk dinaar a def loolu hmm. mu ne loolu loolu bari na bari na aleykum salaam ah góor gi bay moon njaay bu ma nekk sa njaay mu daan dugg si dara jaay ne góor bu neex waxtaan mu ne fa dem Gàmbi ñu daa indi wër ma ne ku moom ceeb bi ma ne xiigu ko ma ne ma tolloog boo xëy sax ma doole mu jox ko loxo joxaale ma loxo ñaar téeméer waaye bi dañ daa ne doon naa doon rek jox loxo téeméer baax ku moom mu ne ko man gaa yow di yaa ñàkk fulla solo bu bëri ceeb gi nga dem deeru lii mu ne de yow kong rek waaye ni ko wax du mujj ci ree de ko ni ko wax du mujj ci ree waaye la jiitoo tax rek la jiitoo tax waaw ah, ah, bëri na koo xam ne tey jii man ci xeem da doore ci mu ne yasa te fekk la ko rek mooy da nga yor xaale mbir mi waaw ah, mustasiteen bëri naa ji tàkk ngir mer mm-hmm. te la tax dana tàkk jamratoo xalam asarra nëbbu na najwaahu déyaaleem wala na dal di nooy sirratuhoo ñaw kam lu ma tax boo ko amee rek jàmm yomb la ci nit ñi boo ko amul nag nit xamuñ bëgg nit nit ko am lañ liñ bëgg rek lañ xam innal muqillina laa tunsa sunubuhumu gannaaw moo dara moom sa ñaaw ñaaw duñ ko mos fàtte wa zambu zil maali maxfuurun wa mastuuru waaye gannaaw xam nga dara nag yëpp mën nañ ko lëngal inna almuqillina la tunsa sunubuhum wa sambu sil maali wa sambu sil maali maxfuurun wa mastuuru gis nga ko bu baax wa kam asirin bari na ku ñu jàpp aslamatu ko jébbale na ko usratuhoo njabootam ku tollu ci xat-xat ay bokkam ku ne naan xamace pexe an qadahoo dinaar xett li ko xataa safat ba sell masalat soo su ko dinaar xàggee daal day mujj mel ni mosul am toro wa xaqi mawlan bëri na xaqi kilifa mhm. ab daxaatu boo fent na ko mhm. fitratuhu bind ak diinaar mhm. léeg-léeg nga gis ci moom dara te dara taxut ñuy ko warlu ci moom bu doon njub xam nañu ko ci gën bu doon ak bokk xam nañu ko ci gën a xëy bu doon ay xat xam nañu ko mag waaye nag moo man dara ci soxla maanaam sama ngoro bala ma ko kenn hmm. wax ku mu laa njëkkee gis suma xew li hmm. wala daa ko may liggéey ci nawet bi hmm. dara am na gën a yee ci yow sax nag ah, waaye gannaaw dara ci sa soxla nag a baax ak kadal faqru yakunu ku baaxul <laughs> mu ne law la tuqaa bu doon ragal yàlla la qultu kon ma wax ne jallat qudratu mu ne bu du doon iman bi ne ci man ba baat bi duma ko wax ci kudu sama borom kon ma wax ko ci dina waaye duma ko ci wax nag hmm. loolu mooy xaaj bu jàkk bi hmm. beneen yoon tam bi insha allah ñu mottali ma xam